yow yow tey dama lay baal. salaamaaleykum mbooloo mi. man nag kenn xamee mooy wax. terrain bi rek. mais tey mënumaa bañ a wax. ndax dañuy wax nii. lu naar bu ndaw bi wax. fu mu ko déggee. ci naar bu mag bi. tey nag damay nangoo nekk naar bu ndaw bi. ndax damaa toog ak kilifa gi muy Ousmane Sonko. muy jëw muy jëw déglu leen rek. ku sell ki mais damaa taw ak moom muy jëw mais comme da nga ne ku ku sell du ma ne ku jëw kuy maanaam kuy déeyoo bi mu paree nag comme ma la doon waxal mu ne ko ah nag ma jéggal de waaye lii de moom dinaa ko nettali mu ne ma bopp boo ko nettali garaaw la du ma la ci ko quoi est-ce que xam ngeen lan la doon jëw ñii la doon jëw te damaa bëgg ngeen tàcc ñi ma wax leen lu mu leen doon jëwee nee na bu dee jàmbaar bu dee fit bu dee xam-xam bu dee doole bu dee expérience bu dee relation mi ngi fi moo ko wax de te kenn ku ci nekk nag mën naa leen wax turam wax la mu wax ci moom mais day gudd mais ñii moom jàpp na ni amul seen pay guddi amul seen pay bëccëg ndax tey li ko waral gis ngeen ba heure bi ñoom ñëpp ñu ngi fi kon ñii président nee na fépp koo xam ne foofu ngeen ko teg na ngeen ko teg ñii ndax bu dul woon ñii lii ñu am nii neewuñu duñ ko am de mais nag dina métti te génnewuñ seen loxo te triché wuñu dañ ko def avec sincérité ndax kenn ku nekk am na loon xool doo ñëw kon ñii. ni leen président jàppe na ngeen leen jàppee man nag seetlu naa ci ñoom nangu gu sëkk ku ma ne toogal fii nga toog fii même boo dee yaay Ousmane bu ma la toogloo ngay toog boo dee taatee Ousmane bu ma la toogloo ngay toog boo dee magu Ousmane bu ma la toog ngay toog kon jii moom dama bëgg ngeen tàccul leen ma leen mention spéciale lii rek a ma tax ma wax dama doon ñëw pour nettali jëw rek tàccul leen ma gars yi jëw